xam naa ne eh, mënuñoo jeexal te duñ wax ñaar jàpp ñetti point yoo xam ne yi danañ ci euh, ñëwaat bokk na ci li nga xam ne lii tey euh, mooy kàddu yi nga xam ne yi euh, kii di Serigne Moustapha Sy yëkkati na ko ci gàmm gi jëm ci li nga xam ne lii moom mooy Ousmane Sonko ak ñi mu ànd ak lu tax ñu la si interpellé parce que da ngaa bokkoon ci li nga xam ne mooy coalition Yewwi Askan Wi te lu bëree bëree bëri également nga fekkee ko. Euh, génn kàddu yi nga xam ne sëñ Moustapha Sy yëkkati na ko jëm ci li nga xam ne lii euh, moom mooy euh, Ousmane sunko jàpp ne moom kenn du ko chantage te lu lu ne daj na ko ci biir yeewi askan wi ci gàmmu gi gis nañ taxawaay bi est-ce que kàddu yi pour yow nekk na kàddu yoo xam ne yu jar a bay xel la ci lu jëm ci koo xam ne kii bokkoon nga ci yeewi askan wi. mun mosuma bokk yeewi askan wi waa Pire sëñ Moustapha Sy moom a aaye woon ne doo dugg si yeewi askan wi. moom moo la ci aay woon. waaw pour quelle raison lu tax. xaw ma waaye damay wax rek ne si Moustapha sama kilifa la sama mag la parce que ñoo bokk menn maam te moom a mag te diggante Touba ak woon benn lan kon wax ju rafet laa si mën a wax mooy kilifa bu waxee dara déggin bi moo si am solo Ousmane Sonko sama frère la sama xarit la li am solo mooy kilifa gu ko doon défendre ba muy metti bi mu neexee yëkkati na kàddoom. na sol dàllam dem seetu ko laaj ko lan moo tax mu yëkkati kàddoom loolu jéem xool nu mu defar diggante boobu noonu. Ousmane Sonko mooy war mooy yoon. te bañ a topp wala mu déglu ñun ñi nga xamante ni dañuy nekk ci wetam di ko wax lu du dëgg di ko wax lu ko neex ngir ko seen intérêt bopp parce que Ousmane Sonko na xam ni Abdoulaye Wade moo ko fi jiitu te jeexal na na xam ni Macky sàll moo ko fi jiitu te jeexal na te yàgg-yàgg day jeexal na fexe bu jeexalee. mën a dëkk nit ñi nga xamante ni ñoo di ay mbokkam ñoo nekkoon ay xaritam démb ñoo nekk ay xaritam tey te fas yéene nekk ay xaritam ëllëg man mii di wax a yow ma ëpp naqar junni yoon sañ Moussa Fassi parce que bi ma ànd defal ko ko te bi sama yaay gaañoo jaale si wuma loolu rek doy na naqar Ousmane sonk ànd gi ma ànd ak moo tax mu dugg kaso te bi mu faloo président la premier ministre ba léegi tegul tànkam fii seet si wuma mais lan la Ousmane sonk mu seet si ma lan la mu mën a yokk lan la mu mën a wàññi. lan la ma mën a jariñ lan la ma mën a lor. kon kàddu sëñ Moustapha gis nga sa yow. waaw dama ni moom mi ko wax xam na tax ko waaye dama ni bu dee naqar laa man mii Cheikh Abdou Badoli aw ma lu du sama yaay teraanga bi moom yëpp sama yaay ma ko sama yaay bokk yaayam benn maam sama yaay gaañu Ousmane Sonko tegu fa tànkam di wër di jaale ñeneen kon que si man la ko njëkkee waaye nag lu ma naqar naqari damay jàpp ci yàlla mi du jeexal xam ni Ousmane sonk ba muy metti daana ñëw sama kër bu neexee ñëwut sama kër damay xam ne àddina la te àddina boobu day jeex te Sëñ waa du jeex Aminata Touré yëkkati na ay kàddu barki démb euh, Ndiaye jëm ci réew mi ne dafa nekk ci ay jafe-jafe yoo xam nii kenn xamul foo koy foo koy foo koy natt dem sax ba ne euh, Amadou Ba bokk na ci euh, ñi nga xam ne ñii ñoo indi réew mi ay jafe-jafe bi mu nekk ministre des finance alors nga wax léegi ne réew mi xëy na mu ngi ci jafe-jafe yoo xam ni fii ak 2029 mënut a jeex kon da nga ay kàddoom. xam nga bi mu ture ay waxam sax man duma si wax lu bari parce que ndaw lu jigéen la bu ñàkk jom. looy jigéen la bu ñàkk jom. jigéen la bu ñàkk ngor jigéen la bu ñàkk kóllëre buñ ko xamee Macky Sall moo tax ñu xam ko fukki at ak ñaari Macky Sall yi def na si fukki at ak benn bul fàtte ni xale yi njëkk faatu ci xeex bi Mimi Touré ngi woon ci wetu Macky di ko jàppale boobu man mii maa ngi si wetu Ousmane Sonko ànd ak moom dem bi ñoo naa tey Mimi ma àndoon na Macky Sall ñu rey xale yi moom tey la Ousmane sonk gën a jàppale Cheikh Abdou mi àndoon ak moom dem ñaanale xale yi ak bi ñoo naa kooku dañ ko war a fàttaliku ñaareel bi moom si boppam bi mu yore ministère de de la justice waxoon na ni CREI yi récupéré nañ si xaalis bu baree bari te xaalis boobu jaarul trésor public jaarul assemblée nationale duggul ministre des finance nan laaj 200 milliards yooyu. nan laaj xaalis boobu fan la dugg beneen bi mooy est-ce que maanaam ñoom nangu na ñu déclenché li nga xamante ni mooy rapport ECA yi gis nga nit dangay gore moo tax may laa si appel Diomaye Faye ak Ousmane sonk li makk Sall defal Mimi ñoom duñ ko ko defal te lépp lu xam nañ ko au conseil euh, au représentant du président. dama bëgg nga déglu ma askan laay waxal li Macky Sall defal Mimi Touré Ousmane Sonko ak Diomaye Faye mënuñu ko defal Mimi Touré Mimi Touré Ousmane Sonko euh, Sall moo ko fal premier ministre moo ko fal ministre de la justice moo ko def PCA euh, kii conseil économique social environnemental mu jiite ab listam di xas Ousmane Sonko di ko laaj Adji Sarr di défendre Macky Sall dem na ban bëgg ko fal assemblée nationale faluñu ko mu gedd ñëw un an la ànd ak ñoom Ousmane Sonko lu mu leen xamal 2029 dana ko fa bàyyi di ko wax leneen kon moom nañ ko tëj li buntam te nëbb ko secret parce que comme Macky la mën a weer askan ak ñoom ñii te lépp lu man ci yàq diggante Macky euh, Ousmane Sonko ak Diomaye Faye dana ko def parce que comme jege na Diomaye